semaine passée ñu ngi doon jàng eh, semaine passée ñu ngi doon jàng diggante riwaaya ak shahada différence bi ci dox donc tey dañuy déparé ci li ñuy tuddee aqsaamu riwaaya xam ngeen riwaaya dafa am ay xaaj maanaam du ne benn façon mbir kese moom moo am du ne benn façon riwaaye kese itam moom moo am donc riwaaye yi ay xaaji xaaj la yoo xamante ne nii ku jàng mën na koo xam ku jàngul mën na jàpp ne yépp benn la aqsaamu riwaayati xaaju riwaaye yi ak riwaayatu laha salaasatu aqsaamin riwaaye dafa am ñetti xaaj donc fépp foo déggatee ñu ne la riwaaye ci wàllu xadis rek xamal ne on fait allusion à trois choses wala trois catégories de choses léegi mën na nekk benn ci yooyu noonu euh, mën na nekk yépp mën na nekk ñaar ci yooyu première catégorie bi mooy riwaayatu bi lafs maanaam riwaaya muutaa moom moom mooy premier échelon bi te moo ci gën a kawe deuxième bi mooy riwaayatu bil maana lii gisoon nañ ko riwaaya bil maana mooy nga riwaaya par le sens le sens du mot mais pas le mot exactement en tant que en tant que tel mais sens bi nga xamantene mom la mot di joxe euh, troisième bi al hadith manam riwaya ben bi walis benen manam riwaya ben patch ci texte bi dayi benen patch bi ñett yi yi nga xamantene une ci lu ñuy suñ ko lu jar a mokkal la nga xam ne suñu la eewoon trois heures du matin laaj la riwaaye ñaata xaaj la ak yan mooy xaaju riwaaye nga mën koo wax riwaaye bil lafz riwaaye bil maana riwaaye baad al xadis riwaaye mu tàmmu fidèlement riwaaye par le sens du texte pas les mots mais le sens bi mu jël ak riwaaye une partie du texte walis beneen léegi nag ilayka taarifu kullin min haadihi al aqsaam dañ lañ lay jox définition ci benn bu nekk ci ñetti xaaj yi ñu la jox bi ci njëkk mooy bu ñu waxee riwayatu riwaayatu bi lafs riwaya par le sang par le mot maanaam muutaamu nga xam ne moom mooy daraja bi ci gën a kawe mu ne hiya an yuaddi raawi marwiya على لفظه الذي سمعه من شيخه من غير تغيير فيه أو تبديل أو تقديم أو تأخير أو زيادة أو نقصان maanaam mooy nit ki ñëw par exemple damaa déggee dara ci Omar su ma ñëwee di ko jotali dama ko war a jottali comme ni ma ko déggee ci moom sans ma yokk sans ma wàññi sans ma baat sans ma jiital dara sans ma mujjee dara exemple bu fekkee Omar Thiam dafa ma wax ne euh, innama al binniyaati wa innama li kulli imriin ma nawa donc su ma ñëwee di ko jottali damaa war a ñëw ne Omar Thiam ma wala mbay nee na ma wala moo nee na ma innama al amalu binniyaati wa innama ne joxe naa ko mu su ma ñëwee ne Omar Thiam nee na ma innama al afaalu binniyaati wala bil maqaasidi wa innama li kulli imri in maana wa boobu joxeetu joxeetuma ko mu taamu def naa riwaaya bil maana parce que al amalu ak al afaal ay synonyme lañ mais du mu laa def al maqaasid ak an niya al maqsad ak niya waaye mën nañu nekk ay synonyme mais du mot à donc le fait ma ñëw ne innamal afaalu bil maqasidi au lieu de innamal amalu niyaati bi ma waxoon mooy ne def naa riwaaya bil maana donc joxeetuma terme xadis bi bu ma ñëwee ne Omar Thiam nee na ma wa innamal amalu bin niyaati mooy ne def naa li ñu tuddee taqdim ak taaxir maanaam jiital naa la mujjoon mu jël la jiitu moom ci li ma waxoon mooy innamal amalu binniyaati wa innama li kulli imri'in ma nawa man ma ñëw ne wa inna li kulli imri'in ma nawa innamal amalu binniyaati donc def naa taqdim ak taaxir <coughs> naka noonu su ma ñëwee ne Omar nee na ma wala Mbay nee na ma innamal amalu binniyaati rek yem foofu te fekk moom li ma waxoon mooy innamal amalu binniyaati wa innama li kulli imri'in ma nawa boobaa def naa li ñu tuddee nuqsaan mooy wàññi naa ci am na lu ma waxoon loo xam ne man indiwuma ko naka noonu moom su ma waxee innamal amalu binniyaati wa innama li kulli mri'in ma nawa man ma ñëw ne innamal amalu binniyaati wa innama li kulli mri'in ma nawa falyanzur ahadukum ma niyatuhu mooy ne yokk naa ci lu ci bokkul mooy def naa ziyaada donc yi ma leen wax nii yëpp benn bu ci nit def joxeetul moo bi fidèlement comme ñu ko riwaaya bi lafz loolu mooy définition wu riwaaya bi lafs mooy nit ki joxe moo bi nga xamante ne ni moom lañ ko moom la dégg wala moom lañ ko sas pour mu joxe ko fidelement sans mu changer ci sans mu yokk ci sans mu wàññi ci sans mu jiital ci wala mu yéexal ci wala mu mujjee ci léegi nag lan mooy àtteem riwaaya bi lafz xukmuhu xukmu riwaayati bi lafz laa xilaafa bayna al a'immati fi jawaaziha wa qabuliha wuute amul ci borom xam-xam yi ci ne riwaaya bil lafz lu daggan la lu jaadu la te tamit lu lu ñuy nangu la lu ñuy nangu la bu fekkee ne chartaay li charte bi wéral xadis daje la ci moom boobaa xadis bi danañ ko nangu voilà loolu wuute amu ci kon donc da gis ne moom moo gën a yombi mbir c'est comme li may wax ci aouzu billahi min kalimati ana ci xadis bu wér manam buñu la hadith bi wér na loolu moo gën yomb moy ba étage ci xam-xam mo gëna yomb ci jàng du yëfi borom xam-xam finalement hadith bi wér la xadis bi wér mo gëna yomb donc gis ngeen danaka fi ñaari ñaari ñaari phrase la le le téré bi def hukmuhu la khilafa presque ben phrase finalement ça na ça ne demande aucun effort intellectuel légui nak buñu ne la hadith bi wérul aha foofu la yëfu xam-xam commencé ban xeet la ci ñàkk wér bi lan moo ko wéré dil ak li ko wéré dil noonu nan lañ koy mën a fajee ainsi de suite ainsi de suite c' est beaucoup plus complexe loolu laay wax suñu doom bàjjani léeg-léeg soo ñëwee ñu ne la xadis bi wéegul rek nañ ko sànni ci mbalit mi déedéet du ne xadis bi wéegul rek dañ koy sànni buñ ne la xadis bi wéegul foofu la yëfu xam-xam commencé dox xadis bu wéeg moom moo gën a yomb ci xadis yi moom da ngay wax rek maa ci dem te dina law donc naka noonu riwaaya bi lafz gis ngeen moo gën a yomb daanaka waa ji benn benn phrase wala demi phrase la consacrer consacré la xilaafa bayna al aimmati fii jawaasiha wa qabuliha point à la ligne léegi nag xool leen yi ciy topp ngeen xool ñaata phrase lañ koy attribuer lañ koy consacré ngeen xool complexité mbir mi ñaareel bi donc loolu mooy premier bi ah grand un grand deux riwaaya bil maana bu ñu waxee ak riwaayatu bil ma'na lan mooy définition bi huwa ibdaalul alfaazi wala alfaazi alxadiisi aw baadiha bi alfaazi uxra mooy nga changé sensu xadis yi wala benn sensu xadis bi wala yenn ci muu yi nga changé ko ak yeneen muu yaakaar naa li jàngoon nañ ko même ci suñu cours samedi benn benn ci samedi riwaaya bil maana donc fii daanaka dañuy approfondir rek wala dañ ciy jaaraat comme révision après ñu jàll donc bu ñu waxee riwaaya bil maanaam mooy nga jël benn texte nga jël ay mots yu nekk ci texte boobu au nga joxe ko fidèlement mais nga riwaaya ko par leur synonyme qui peuvent avoir même sens que ñoom comme li ma wax léegi ci exemple innamal amalu binniyaati wa innama likulli imrin ma nawa soo ñëwee nga ne innamal afaalu bil maqasidi riwaaya nga ko bil maana parce que al amalu ak afaalu العمل والفعل دانك كيلا اي سينونيم لنيو المقصد النية اي سينونيم لنيو ديليك بارفوا تي لي تودي الف لي ني تودي فقه اللغه من نانيو ام اي ديفيرونس يو سوبتيل يو خامتيني لولو كو خور تي عرب دغ ولا كو خور تي لانغ غرامير لانغ بو مونتي دون مو موكاي خام je vous ai donné je je me rappelle je vous ai donné exemple fi biñ ci ñëwé jour bobu ci su ma ne la l'outrepudence wala mané la le courage extrême danaka le mot la bu am ñaari un ñom sens mais ben bi c'est péjoratif ben bi c'est c'est plus qui. donc soo aider wala remorquer ñom ñaar ñëpp mën nañu jël benn sens il va être aidé il va être remorqué mais le deuxième c'est un peu désobligeant c'est un peu qui un peu péjoratif que le premier, qui est beaucoup plus poli, beaucoup plus diplomatique. Donc, riwaaya bil maana Moi, nga jël texte bi biñ la wax nga utiliser yeneen mots yoo xamante ne moom ki la wax texte bi waxul la loolu mais yow yaa ko utiliser de ton propre chef pour joxe même sens bi léegi nag lan mooy àtteem concentrez-vous bien أتبي اتفق العلماء على أنه لا يجوز للجاهل وللمبتدئ أن يروي الحديث بالمعنى برام خم خم يدبو ننكنه جاهل كني واحد جاهل ولا كو خم أنتني أبتالي بيبوي سوغو دور لا كوكو داغن ولتي موم موي رواية حديث بالمعنى لكن نك مالوريزمون دا ngay gis كو خم أنتني موم تي خم ناني موم جاهل لا mom ci bopam maanaam nek jahil ba pare xamne mom jahil la te ba pare mom moy tok di riwaya hadith bil maana sans respecter les chartes ak les conditions yi nga xamantene ci leen ko teunk naka nonu ko xamantene day soog do xam xam hadith lu complexe la complexe complexe la mais man gis na ño xamantene ni sen geustu ci hadith 3 mois il se donne la prétention di jàngale hadis léegi maanaam man dama damay tiit su ma gisee loolu mu ngi mel ni tey jii koo xamante ne jàngam ci ingénieur wala ci médecine matul trois mois mu ñëw ne dafay dem hôpital pour opérer médecin pour opérer malade il est prêt à assassiner hmm? donc bu ñu waxee al mubtadi ci hadith de terme yeb dinañ ci ñëw définir ko ci walu hadith bu ñu ko waxee lan lañ ci jublu parce que hadith bu ñu xey mubtadi amna fu mu commencé amna fu mu yem daanaka am niveau bo xamantene tank tant que nit yeggagu fa sax mubtadi la ci hadith naka non ko xamantene ni xamul arab bu baax xamul mot yi xamul synonyme yi xamul adverbe yi ak ki ñu mëna jël mouture yi ñu mëna jël koku tamit da fay haram ci mom muy riwaya hadith bil maanaa laa yajuuzu loolu boroom xam-xam yi dañ koo dàq ci koo xamante ne ni dafay. recording in de d'allumer l'enregistrement excusez donc koo xamante ne nii jaaxil la dinaa dinaa reprendre après pour enregistrement bi comme ça ñu koy toppaat incha allah koo xamante ne la wala koo xamante taalibe buy doga tàmbali la koku daga nu ci mom muy riwaya bil mana li mom moy li borom xam-xam yi depo alors khatib al baghdadi waxna ne euh laysa bayna ahli laysa bayna ahli al ilm khilaf fi anna zalika la yajuz lil jahili bi maana al kalam wa mawqi al khitab manam wuti amul ci digante borom xam-xam yi kené riwaya bil mana zalika bi riwaya bil mana lay wax riwaya bil mana daganul ci koo xamante ne ni jaahil la wala koo xamante ne xamul maanaawu baat yi ak sens yi ak mu yi fan la leen war a posé fan la war a waxee lii fan la war a waxee lale xam nga même ci lettre ñun ñi booy jàng école même façon formule bi ngay bindee lettre dañ la koy expliquer formule bi ngay bindee lettre administrative bokkut ak formule bi ngay bindee lettre demande d'emploi formule bi ngay waxee un président de la république bokkut ak formule bi ngay waxee les parents wala un chef wala nangam. kenn ku nekk am na hiérarchisation ak grade ak mots yi ngay utiliser naka noonu tamit ci xadis dañuy soxla nit ki xam mawqeul kitaab maanaam palaasu baat yi ak euh, sensu mots yi fu mu ko war a teg ci ku mel noonu moom mooy dagan ci moom mu mën a def riwaaya bil maana foofu mooy dagan ci moom mu mën a def riwaaya bil maana mais ko xamantene lolu dajewul ci mom koku du dagan mu def riwaaya bil mana selon li khatib al baghdadi rapport wax ci terem bobu di al kifaya fi al riwaya mune waye waxtalafu waxtalafu fi jawaazi riwaayati bil maana lil aalimi bil lil aalimi bil maani wa mawaqi al xitaab maanaam wuute nañu xam nga fee daf ne dëppoo nañu ci ne daganul ci jaahil ak un tàmbalikat wala un un débutant muy def riwaay bi maanaam fii nag daf ne wuute nañu ci koo xamante ne moom boroom xam-xam la koo xamante ne xam na baat yi xam na seen place xam na seen xàq kooku wuute am na ci parce que itam dafa am ay charte yuñ ko tëkkee am ay conditions yuñ ci takk ibnu Salah wax na ne ci muqaddimatu ibnu Salah mm, mu ne fa amma ida kaana aaliman bi zalika ay bi bil alfaasi wa maqasidiha maanaam bu fekkee ku xam baat yi la ak seen jubluwaay ak euh, mu nekk ku xereñ ci baat bu nekk lan la mën a am ci maanaa ci sens contraire et sens euh, kii basiran mu nekk ku xeew ci uutey baat yi ak seen degré seen degré de péjorativité wala de positivité et tout kooku borom xam-xam yi wuute nañ ci ci diggante ashabul xadis ak arbabul fiqh wal usul borom xam-xamu fiqh yi borom xam-xamu usul yi kenn ku nekk ci ñoom ak école xadis kenn ku nekk ci ñoom ak façon bi nga ko gisee xam nga lii règle bu xaw a subtil la léeg-léeg benn terme mën na ñëw école fuqaha yi les juristes ni lañ koy gisee les constitutionnalistes muy usuli yu ne ñoom nii lañ koy gisee les les grammairiens gisee ko ne le les muhaddisuun gisee ko ne yaakaar naa ñëwoon nañ ci bi ñuy wax ci wàllu définition wu sunna mooy lan on avait défini sunna ci école luga sunna ci école fiqh sunna ci école usul ainsi de suite on avait fait ça si vous vous souvenez donc fa jawazahu aksaruhum ñu bëri ci ñoom ñu ëpp ci ñoom daganal nañ ko maanaam jawazahu bi daganal nañ ko la fi tekk mooy ne lan lañ daganal mooy daganal nañ riwaaya bil maana ci ki nga xamante ne condition yi daje daje na ci moom yan condition la mooy ku xam baat yi li muy tekki xam place yi ñu koy teg xeewu maanaam mu am basira ci moo bu nekk li mu mën a yenu ci sens ci euh, nekk moo bu ouvert wala moo bu fermé par exemple am na baat yoo xamante ne ni boo ko utiliser c'est beaucoup plus généralisé am na boo xamante ne c'est beaucoup plus singulière ci benn sens donc du dagan du dagan yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax benn xadis boo xamante ne xadis bi c'est beaucoup plus général yow nga ñëw def ko xadis bu singulier mais ni aw nit lay waxal naka noonu du dagan itam yonent bi wax benn xadis boo xamante ne nii c'est singulier dafa am spécifiquement ku muy waxal wala contexte bu muy waxal yow nga ñëw utiliser baat boo xamante ne nii dafay généraliser mbir mi mu mën a làmb ñëpp lii c'est très complexe mooy li ma doon wax ak euh, mbokk yi fan yee ci ginnaaw. ci aaya bi ñuy génnee ci contexte wala nangam texte bi dafa am benn boroom xam-xam buy wax ne un texte sans contexte est un prétexte donc texte sans contexte est un prétexte bokk na ci riwaaya bil maana daf koy dafay indi lu mel noonu mooy yonent bi wax benn xadis boo xam ne góor ñi la ko jagleel kese yow nga ñëw indi ko ci benn lafsu boo xamante ni daanaka góor ak jigéen dañ ciy dugg yonent bi wax benn xadis boo xamante ne benn génération de personnes la ko jagleel yow nga ñëw indi ko ci riwaaya boo xamante ne daanaka dafay laaf jullit ñëpp te loolu bëri na loolu bëri na ngeen baal ma lii je le dis euh, dafa dafa dafa teew nii rek ba ci masalay xijaab ak muuraay jigéen ak yooyu noonu bon masala bu yaatu la je vais pas y rentrer là mais am na ci loo xamante ne nii c'était spécifique ci benn époque ak ci benn catégorie de personnes malheureusement certains ont riwaaya ñu riwaaya yenn xadis euh, yi bil maana jël ko laaf ko ci mboolem jigéenu jullit ñi ba ku nekk Alaska ba ku nekk Afrique du Sud ba ku nekk Norvège ba ku nekk Tambacounda ce qui n'est pas vrai bon du ma dugg ci détails yi mais ça il fallait que je le dise quand même donc façon yu mel noonu dafay am léeg-léeg te loolu dañuy soxla kiy wax mu nekk ku am capacité bi muy bi bi bi ñu soxla ci xam baat yi baat bu nekk laka lan la mën a amee ci maanaa bu loolu amul na yem ci li yonent bi wax ci texte bi ni ñu ko waxee d'accord walam yujawizuhu wala wala walam yujawizuhu baadu almuhaddisina wa taifatun min alfuqahai wal usuliyin min alshaafiiyina wa gayrihim maanaam yenn ci boroom xam-xamu xaddis yi ak yenn ci fuqahaa yi ak yenn ci usuli yu lay ci école imaamu shafii ñoom malgré loolu daganaluñ ko ñoom dañu stricté wu ne il faut que riwaay maanaam moom nañ tëj buntu boobu parce que bu ñu ko ubbee rek yàq bu rëy mooy dugg donc da gis ne ba ci école yi tamit buñ ne la fiq matière la mais ci biir école fiq tamit maaliki yu ne yi mën nañoo daganal lii shaafi yu ne shaafi yu ne yi xaraamal ko xanaabila yi gisee nii ahnaaf yi gisee nii chia yi gisee nii zaydiya yi gisee nii ainsi de te loolu ci usul yi la pas ci furuu yi fiq bu ñu waxee usul usulul fiq lañ ci jublu pas usulul diin y ce qu'on appelle usulul fiq usulul diin usulul tafsir usulul taarix usulul asar bon ay matières yu yaatu la malheureusement léegi xam-xam tumuraanke ne ba bu ñu waxee usul wala nit ku wax usul daanaka dañoo foog ne usulul fiq kese moo am maanaam dafa am usul ak usuli usul ak usulu usulil usul exemple lii bokkul ci cours bi je pour commentaire Maliki di école Malikiya am nañ seeni usul maanaam dangay ngay gis usulul fiq boo xam ne ci école Malikiya la ñu mel ni ñoom euh, Baqillaani je crois ñu mel ni ñoom Ibn Rushd dañuy bind ci fànn boobu usulul fiq fil Malikiya usulul Malikiya nga dem ci Shafi'i ci Shafi'i yi am nañ seeni usul. إمام Ghazali al-Mustasqa al-Mustasfa bi mu bind ci usulul fiqh usulul fiqh la mais quand même usulul fiqh ci usulu shafiiya ak ñeneen ak ñeneen ñuy bind ci wàllu woowu nga dem ci axnaaf yi mooy mazhab Abu Hanifa ñoom tamit am nañ seen usul ñu mel ni ñoom Saraxsi ci Mabsuut ak ñeneen ñu mel noonu dañuy bind ci loolu ñoom Alaawuddin al Buxaari pas Buxaari borom Saxiixul Buxaari mais ki Alaawuddin al Buxaari la tudd nga dem ci xanaa bi lay am nañ seen usul di léegi ñoom ñoo ci gën a néew quand même parce que ñoom ils sont beaucoup plus hadis que kii mais ci wàllu usul yaa usulul xanaa bi la yaa usulul ahnaaf moo gën a dëgër maanaam moo gën a yaatu je veux dire yaa usulul malikiya et yaa usulul shafiiya usulul xanaa bi la c'est beaucoup plus c'est beaucoup plus farfelu ngeen jéggal ma ci wax ji c'est pas pour les pour tuutal leen mais loolu laa seetlu ci. Euh, li ma jot a gëstu seen usul moo gën a légère ñële ñoo leen gën a dëgër la usul léegi ci seen usul yooyu am na lu ñu ciy wute par exemple ci diggante ni ñuy jëflante diggante aam ak xaas ni ñuy digg ni ñuy jëflante diggante tarciix ni ñuy jëflante diggante xiyaas euh, yooyu yëpp dañ ci am wute léeg-léeg nga dégg benn waaye bu ne la xiyaas nangam te fekk moom xamul ne xiyaas boobu muy wax ci usulu maalikiya kese la valable mais boo demee ci xanaa bi lay ñoom neneen la gisee xiyaas boobu ولا من لا ترجيح ولا من لا عام خاص ولا من لا ناسخ منسوخ اك يمل نون تيرم يوي دا خا نتي بن اصول تي بن ايكول لا دغان تي غيسين بوب مي بو ديمي تي بنن ايكول نيم داني غيسيني نين اكزامبل تاي جي بو دون تي والو دووا لا بو نلا لا لوا ني باري اكتيف لا ريترو اكتيفيتي دو لا لوا خينا ايكولو جوريس سانغام ньо غيسيني ني مي امنا يينن جوريست يوي مانا غيسيني نين كني لا لوا با ايتريترو اكتيف تي دومين سانغام سانغام سانغام لولو اون باري اصول on parle pas des furo mais bu ñu waxee furo lan lañ ci jublu furo yi moy les pratiques culturelles la booy julli da ngay teg sa loxo booy dog ci sa dënn da ngay jang bismillah ci Bob fatiha da ngay jàpp ñett juróom ñett yoon ngay raxas fi nangam nii ngay sangoo jàpp loolu mooy furo yi amna ben benn sa bu tudd az-zakhira fi furu al-malikiyya yaakaar naa volume la donc lolu ci furo yi la mais du usul ala itihad c'est un domaine beaucoup plus qui mais c'est un domaine passionnant quand même il faudra un jour الله أعلم يلا يلا ما يقول دفن غير دونك ولم يجوزه بعض المحدثين من نعم نعم بعضهم ومنعه بعضهم في الحديث في حديث رسول الله واجازه في غيره بلغي نيجي واخ روايه بالمعنى من امنا ньо خمانتني يلا بروم خم خمي مانام تري نني روايه بالمعنى في حديث يونس صلى الله عليه وسلم waaye daganal nañ ko ci xadi ci waxu keneen ku dul yonentu bi par exemple lu mel ni asar bu ab sahabi wala lu mel ni xabar bu ab tabii wala yu mel noonu mën nañ cee riwaaya bil maanaam mais ñoom dañoo tëj buntu bi ci wàllu xadis yonentu ñu ne foofu moom buñ ci riwaaya bil maanaam donc loolu il faut savoir que yenn na la ci borom xam-xam yi du ñëpp man sincèrement je partage pas cette cette avis là peut-être mon avis n'est pas intéressant ci kii bi mais man je partage pas cet avis mais par honnêteté intellectuelle il faut ñu jàngale ko xam ne am na ñu tere riwaayabile maanaa de façon catégorique et générale sans exception am na ñu ko digle pour une catégorie de genre yoo xamante ne nii ñoo am benn façon critère bi mooy ku xam nangam am nangam am nangam am qualification nangam kooku dagan na ci moom mais xaraam na ci ku sàngam ak sàngam ak am na ñoo xamante ne daganal nañ ko ci benn catégorie de wax araamal ko ci benen catégorie do wax moy par exemple daganal nañ ko ci waxu keneen ku dul yonentou mais bu dee waxu yonentou bi la dañuy insister que né il faut mu nekk lafz bi am na ñoo xamante nag même ci biir waxu yonentou boobu tamit am na luñ ci daganal am na luñ ci xaraamal on va le voir incha allah maa ngi jéggalu ci bruit bi tey suñu koñ bi dafa xaw a am xew mu ngi bâche mbedd mi donc certainement vous allez entendre des kii <clears throat> ويجدر التنبيه هنا على أنه يشترط في الرواية بالمعنى أن لا يكون الحديث من جوامع كلمه maanaam bokk na ci li ñu war a attirer attention fii mooy boroom xam-xamu xadis yi dañoo wax ne dañoo chartal ne riwaaya bil maana dañ ciy chartal wax ji bu mu bokk ci ay xikamu yonentu bi sallallahu alayhi wa sallam par exemple comme yonentu bi ne la لا ضرر ولا ضرار امنا فصل وحي من نون يو خامت اي وحي غات لا جوامع الكلم لا بوك يوي دنجي حرامل روايه بالمعنى مانام دنجي شاتال بو روايه بالمعنى دغان بوم بوكو سي كاتيجوري وحي يوي نون نيارل بي ولا من الاحاديث المتعبد بالفاظها بوم نيك بوم بوكو سي حديث يغا خامتاني دنجي jaamoo yàlla ci ay moom ci ay baatam par exemple lan mooy xadis ñi jaamoo yàlla ci seeni baat mooy lu mel ni at tashahud wal qunut maanaam comme at tahiyaatu lillah azakiyatu lillah taaya li olof yi di wax taaya ak qunut allahuma inna nastainuka wa nastaghfiruka wa numinu bika wa natawakkal alayka wa kullahu loolu tamit dañoo chartal ci ne riwaaya bil maana du dugg foofu maanaam bépp xadis boo xam ne dañuy jaamoo yàlla ci baat bi comme yooyu noonu tashahud xunut comme liqaam comme noddu xam nga yooyu yëpp ay xadis la ñëwul ci alxuraan donc doo wax ne damay nodd mais damay riwaaya nodd bi bil maana doo wax ne damay xunut mais damay riwaaya xunut bi bil maana wala damay taaya mais damay riwaaya taaya bi damay jàng taaya bi bil maana ça se fait pas doo wax ne damay liqaam mais damay liqaam bil maana ça se fait pas naka allahu akbar takbir yi def ci julli xam nga ñëwul ci alxuraan takbiraat yeeg yu mel noonu sami allahu man xamida yeeg yooyu doo wax ne da nga koy def riwaaya bil maana nga ne par exemple au lieu de sami allahu liman xamida nga ne sami allahu liman shakara ça ça se dit pas voilà rabbana walaka alhamdu au lieu de rabbana walaka alhamdu nga ne rabbana walaka niama wa shukru voilà ça alhamdu loolu ay ay alphase tawqifiya la donc fa dafa war nga def ko tawqifan comme ni mu ñewé ci euh, ci sharia ci sharia li ay sew sew la yu mata xam ngeen jéggal ma c'est pas très modeste de cité mais li lay faral di wax suñu doomu bàjjale suñu doomu nijaay c'est pas parce que livre nga texte ci google rek nga mën a xam sew sew yi faa nga sukk ci kanamu serigne mu jangal nit ki mëna xam riwaay bi manam mais yenn sew sew yi soo ko ci laajoon mu gàkk nga ko par exemple yenn xéetu hadith mo daganu ta riwaya bi manam ci ban catégorie hadith la ñu riwaya bi manam Hmm, doo ko fekk ci téere yu bari ça moom je vous l'assure alors bal bal haadihi al ahadis mimma tufiqa ala riwayatiha bi lafs yi façon xadis yu mel ni dafa bokk ci li nga xamante ne dañoo dëppoo ci ne dafa dagan ci ñi riwaaye ko dafa war ci ñi riwaaye ko lafzan ci nañ ko dafa war ci ñi riwaaye ko lafzan maanaam muutaa yonent bi si jàngalee nodd dafa war ngay riwaaye nodd bi muutaamu paa nga ñëw ne da ngay riwaaye nodd bil maana comme ni ma la ko waxee paa nga ñëw ne da ngay riwaaye liqaam bil maana wala da ngay riwaaye taaya bil maana wala xunub bil maana wala albaqiyaatu saalihaat da nga koy riwaaye bil maana yooyu ay ahadis la yoo xamante ne nii yutaabadu bi alfaziha dañuy jaamoo yàlla ci baat yi am na xadis yoo xamante ne du ñuy jaamoo yàlla ci baat yi maanaam ay digle la ay tere la ay wax la ay nangam la ay xikaaya la ay xissa la loolu beneen atti la am moom la ñuy gis nii incha allah والخلاف والخلاف في الرواية بالمعنى إنما يجري في غير الكتب المصنفة ما نعم تمت بكون كي ووتي كي رواية بالمعنى دا دغنا ولا دغنا كي أن دور دي تيري يغا خمانتيني بيند نان كو تاكو كو بار اكزامبل تاي جي مان مونو ما نيو ولا ما نعم دغنا لو مان ما نيو دي لين صحيح البخاري ولا أربعون حديث ولا نانغام ma ubbi hadith bi gis hadith bi limu wax carrément waaye malgré loolu ma riwaaya hadith bi bil maanaa loolu ma parce que man damay lire dafa war honnêtement ma joxe li nga xamante ne moom laa liir léegi nag bu fekkee ne ci sama mokkal lay waxee maanaam damay bind téere wala dama nekk ci conférence tiimuma téere bi tiimuma référence yi may kii xadis bi dama koy wax daam de par ma tête boobaa mën naa nettali xadis bi bil maanaa waaye nag boobaa dafa am charte buy tënku ci man charte bi moy lan moy nga indi terme buy wane ne da nga def riwaya bi maanaa lolu jangon nañ ko moy par exemple bo jang bo waxee hadith ba par nga né aw kama wala nga né ruwi ani nabi wala yu mel non daal wala qila wala nangam manam dal nga wane ci luy wane ne da nga riwaya bil mana pour ki lay déglu mu xamné kat joxé wo mbir mi lafzan pour en cas bu ci amé ñu xamné yow ya mais bu fekkee da ngaa tiim téere bi di jàngale foofu dafay xaram ci yow wala da ngaa tiim téere bi di toxal foofu dafay xaram ci yow nga def riwaaya bil maana da war a joxe honnêtement li nga xamante ne moom la téere bu bind naka noonu bu fekkee ne da ngay joxe xadis maanaam dama leen di transmettre xadis isnaadan xaddasana xaddasana xaddasana bu fekkee damaa tiim téere bi di di leen ko jox dafa war ma jox leen ko ni mu nekkee ci téere bi mais bu fekkee ne dama leen koy jox euh, lafzan ci sama mokkal boobaa mën naa leen ko jox bil maana yéen tamit ngeen riwaaya ko ci man bil maana ainsi de suite xa loolu bëri na ci xeetu xadis yi am na ku wax ne son bi daf faible de xaw ma nag Seydina Omar Ndiaye son bi daf faible wala yéen waa Facebook yi bu fekkee daf faible ngeen wax ma wala ngeen xool seen téléphone yi un peu man xam naa léegi ma coupé leen sax ñaata minute lañ def ak yéen lu ci des ma continuer ko ak mbokk yi on a fait 30 minutes avec vous donc à 40 45 inchallah ñu ci وقال العلامة الطاهر الجزائري رحمه الله وقد تبين من البحث في هذه المسألة والتتبع لما قيل فيها أن للمجيزين للرواية بالمعنى ثمانية الأقوال معنى بو توبي قستو استقراء قبيك لنخمان li nga xamante رواية بالمعنى nañ ko ci riwaaya bil بالمعنى daanaka wax nañ huit wax yu wuute yoo xamante ne dafay spécifié riwaaya bil maanaa gis ngeen ba léegi ñu ngi ci riwaaya bi maanaa de gis ngeen ni mu yaatoo alors que bi ñuy wax riwaaya bi lafz moom boobu benn phrase day indi mu jeex première bi mooy première bi mooy am nañu wax ne qawlu man faraqa bayna al alfaaz allati la majaala li tawili fiha وبين الألفاظ التي للتأويل فيها مجال فأجاز الرواية بالمعنى في الأولى دون الثانية معنى أمن يوحنا ساسي أن أمن يوحنا دني ديستنجي ديغنت بات يغا خمانتني تأويل منو أم سيني سيسيبتيب دوكين انتربريتاسيون ak baat yi nga xamantene c'est susceptible d'avoir plusieurs interprétations légui ñu daldi daganal riwaya ci baat ci bu njëkk bi maanaam baat yi nga xamante ne c'est susceptible d'aucune interprétation araamal ko ci bu ñaareel bi par exemple bu fekkee ne yonent bi dafa wax baat boo xamante ne nii amul susceptibilité mu am beneen interprétation bu dul loolu ak beneen xadis ñëw mu am susceptibilité am interprétation yu bëri ñu daal di daganal riwaaya bil maana ci susceptibilité bi nga xamante ne amul interprétation nga wane ne yow da nga ko riwaaya bil maana joxe honnêteté intellectuelle bi ku bëgg mu dellu ci cosaan li yi nga xamante ne nag dafa am interprétation yu bëri ñu xaraamal ko nga joxe li yonent bi wax pour nga bañ a joxe beneen baat buy dugal gëm-gëm ci xadis bi bu bokkut ak bi ci amoon wala yaakaar naa jàngoon nañ ko keroog bi ñuy wax ci riwaaya bil maanaa l'autre fois maanaam riwaaya xadis bil maanaam mën na indi sax pas-pas bu jullit parce que fekk waru ko woon a fas mën na indi pratique ci diine boo xamante ne waru ci woon na am mën na indi pratique ci relation boo xamante ne nii waru ci woon am c'est très complexe maanaam benn xadis benn baat nga changé ko ci benn xadis parfois ça peut modifier totalement pratique nit ñi wala gëm-gëmu nit ñi ku baaxoon bon ku ku ñu waroon a jàpp ñu bañ ñu bàyyi ko ku ñu waroon a gëm ñu weddi ko ku ñu waroon a fonk ñu doyadal ko ku ñu waroon a jëflante ñu dogoo moom ainsi de suite lu ñu waroon def ñu bañ koo def benn baat léeg-léeg sax benn xaraf benn xaraf deuxième bi mooy xawlu man faraqa bayna al awamiri wa nawaahi wa gayrihima fa ajaaza riwaayata bil maana fi l ula duna saaniya maanaam yi ñi nga xamante ne itamit dañoo distinguer diggante xadis yi ñëw ci digle ak ci tere ak xadis yi ñëw te nekkul digle nekkul tere xam nga am na ay xeetu xadis yoo xamante ne dafa enu ay digle ak ay tere am na xeetu xadis yoo xamante ne làmbut loolu léegi nag ñu daganal riwaaya bil maana ci bu njëkk bi araamal ko ci ñaareel bi maanaam xadis buy digle ak di tere ñu daganal ci riwaaya bil maana araamal ko ci loo xamante ne duwut riwaaya ci duwut digle ak tere pour bañ nga indi fa baat boo xamante ne ni dafay digle wala mu tere ci place boo xamante ne amutoon digle tere amu fa woon place wala dafay xaraamal wala mu daganal ci majaal boo xamante ne xaraamal dagan amu fa woon place troisième قول من فرق بين من, من يستحضر لفظ الحديث وبين من لا يستحضر لفظه بل نسيه وإنما بقي في ذهنه معناه فأجاز الرواية بالمعنى للثاني دون الأول waxi ñi nga xamante ne tamit ci borom xam-xam yi dañoo différencier diggante koo xamante ne teewlu na lafzu xadis bi ci boppam moment bi muy wax ak koo xamante ne moment bi muy wax fàtte na lafzu xadis bi mais teewlu na maanaa bi ñu daal di daganal riwaaya bil ci la deuxième mooy ki nga xamante ni dafa fàtte maanaa bi dafa fàtte terme bi mot bi mais teewlu na sens bi araamal ko ci ki nga xamante ne moom jamono bi muy wax teewlu na mot bi maanaam tey jii man su ma ñëwoon bëgg a wax benn xadis ma teewlu terme xadis bi comme ni ma ko jàngee woon dafay xaraam ci man ma def ko riwaaya bil maanaa damaa war a joxe xadis bi comme ni ma ko jàngee woon bu fekkee nag moment bi ma ko soxlaa pour istishhaadee ko yàlla def ma fàtte muu bi lafzu bi waaye teewlu naa maanaa bi ñu daganal ci man moment boobu noonu ma joxe maanaa bi walis terme bi quatrièmement qawlu man faraqa baynahuma gayra annahu akkasa alxukma fa ajaza riwayata bilmaana liman yastaxdiru lafza liman yastaxdiru lafza maanaam

قول من أجاز الرواية بالمعنى بشروط ولا بشرط أن يقتصر في ذلك على إبدال الألفاظ المفردة آه، بمرادفها دون التركيب معنى وخو بروم خم خم ييغا خامتاني دانيو دغانال الرواية بالمعنى تي كيغا خم تي شرط تي شرط nga limité wu uniquement ci mots yi nga xamante ne mufrada ci mots yi nga xamante ne les mots singuliers avec leur synonyme sans pour autant nga changer construction wu phrase bi wala construction wu hadis bi y a une grande différence entre nga ñëw ci benn hadis jël benn mot ci hadis bi joxe synonyme am ak nga ñëw ci hadis bi changer construction wu hadis bi complètement exemple su ma ne la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ne man kaana yuminu billahi wal yawmi al axiri fal yaqul xayran aw liyasmut léegi ma ñëw di def riwaaya bi maanaa ma ne man kaana yuminu billahi wal yawmi al axiri fal yaqul sawaaban aw liyasmut donc baatu xayran bi moom laa changé ak sawaaban kese n'est-ce pas wala ma ne man kaana yuminu billahi wal yawmi al baasi كيف كو گم يالا گم بيسو ديكي اولي دا يوم يوم الاخر من يوم البعث دونك باتو اخر بي اك بعث بي كيسلا شانجي سي بون لولو سي ديفيرون اك ما نيو شانجي كونستركسيون او فراز بي كومبليتمان ني يونت بي صلى الله عليه وسلم واخنا ني ينبغي للمؤمن الذي يؤمن بيوم القيامة ويؤمن بالله أن يقول خيرا وإلا فليسمع دونك شانجينا كومبليتمان كونستركسيون فراز بي nest pas loolu ñaar yooyu dafa wuute seen àttee tamit dafa wuute mooy nga jël benn baat nga joxe synonyme ak nga changé tarkiibu xadis bi yépp am na boroom xam-xam yu différencier diggante ñaar Euh, am ñu différencier diggante ñaar yi sixième bi qawlu man faraqa bayna man yurid alxadi man yurid alxadisa ala qasdi alixtijaaji walfutiya wa bayna man yuriduhu li qasdi riwaayati fa ajaaza riwaayata bilmaana lil awali duna saani sixième bi mooy boroom xam-xam yi nga xamante ne ñoom dañoo différencier ci riwaaya bil maanaa diggante ki nga xamante ne dafay indi xadis bi ngir fatwa ak ihtijaaj maanaam argumenté ko par exemple comme man tey jii ñu laaj ma benn question ma war a indi xadis pour argumenté ko pour tontu ci wala ma war a génnee benn fatwa sukkandiku ci benn xadis wala ma nekk ci benn débat soxla benn xadis comme argument comme argument de de mes propos ma war koo indi pour illustrer ko. diggante kooku ak ki nga xamante ne moom dafay indi xadis bi ngir riwaaye kese maanaam ngir jottali ko nit ñi ak jàngal leen ko y a différence aussi man mii nekk ci benn débat ak benn ibaadu wala benn suma doomi nijaay indi benn xadis pour argumenter ko li may wax wala man mi ñu laaj question ma war a indi xadis pour tontu ci question boobu ñaari cas de figure yooyu sont complètement différents ak man mi nga xamante ni dama toog di leen jàngal xadis di leen jox riwaaya qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam kaza wa kaza qaala rasulullahi kaza wa kaza qaala rasulullahi kaza wa kaza donc boroom xam-xam yi am na ci ñoo xamante ne dañoo différencier ci cas de figure yooyu ñu daal di daganal ci ku njëkk ki araamal ko ci ku ñaareel ki ku njëkk ki mooy kan mooy kii ki nga xamante ne dafay indi xadis ngir argumenté ko wala ngir joxe fatwa ñu ne kooku mën na indi xadis bi riwaaya bil maanaa bu fekkee teewluwul lafz bi ki nga xamante ne nag dafay jàngale xadis di ko transmettre kooku dafa war a tënku ci lafzu xadis bi bañ a def riwaaya bi maanaam pour ne pas pour ne pas biaiser lafzu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam comme ni mu ko joxee woon. waa Facebook bi xaaral ma tàggu leen on a fait 40 minutes avec vous li ci des ma mottali ak sama sama élève yi incha allah si vous si ça vous intéresse vous pouvez vous inscrire et pour les questions posées aussi sincèrement parler lors des dax ici je ne réponds à aucune question ñi nga xamante ne ñoom ñoo inscrire ci plateforme bi je peux les répondre à 1000 questions s'il veut donc si ça vous intéresse vous pouvez seulement vous vous inscrire quant à Daxuri vous pouvez vous contenter de prendre des notes ba semaine prochaine inshallah samedi Assalamu wa rahmatullah